Thank you. soxna si waaw maa ngi si jàmm maa ngi fi Mariam Naar de sunu dëkkandoo la rek bu baax mu xew la ñu teewal ko ndax foog naa ni moom borom baax la moom dafa gën moo tax tey rek ñu ñëwal ko bàyyi sunu lépp nag ñëwal ko non tey dañuy wàcc dañuy wàcc bay përiyee tey xale yi dinañ taw noonu rek waa jéem léeg-léeg nga sañ sa rek non non mosuma ko xeeb. Marème Niang mun na mënul bañ a am lii parce que dafa gën dafa baax ku mu gis def na la ni comme fu mu bokk ndaay baay kon boo wootee dañuy wàcc ba mu neex wàcc xale koy def dëgg la xale koy def dara du xaw.

ay robo lañ ay robo piir lañu bu ñu neexoon dañuy dem solo solo waaye dañ ko jàppale ba mu neex ma dem naa fi mu bëgg a egg yal na fa yàlla egg barki sëñ Fall ñoo ko ñaanal bisam bi yal na mel ne doxam galaas ñëwa ci yaayam. dama ren naar waa gis yow fay naa la sama fiis fay naa la bésu mareem naar bi du yomb bésu mareem naar bi yaay papa mu daw ñëw ci koñ bi rek yaayoo ma ma doomoo ko bisam bi yan ñu ngi koy ñaanal li ma ko waxoon suba rek dugg ci bisim raay rahmaan rahim eggalee alhamdulilah rabil alamin lii rek lañ yàgg ci woon ambiance ba mu neex

def naa ko waral rek yaa ma gën a xam daa ko ñëw ci kañ bi wax wala njëkk ak teraanga sama xarit la sama lunko sama doom bay la yaa ma gën a xam nice nice kay billaay xaaj kanam neex sama yaay booy fay naa la yaay booy maa ngi ci jàmm ba def simple rek ñoo wàccee bis bi def def sa mbaare mu

tey boo ñëwal fekk sa nawle muy Marème Naar lan nga waxal tey ci bisam bi. waaw tout d'abord dañoo bokk géejewaay balaa aar di ñu woo dañoo bokk géejewaay yokk benn koñ tamit boo foo dajee moom mu bëgg loolu war na jaam ak salaam loolu moo ñu indi ci bis. waaw tey loolu lañ tey ci bis bi tey naa di ko wàccee. waaw dinañ fecc daal dinañ yëngal def ko mu neex. ndax xam nga man balaa xam ci yëngal. waaw war a fecc fecc. moom lay demee macha allah. allo. maanaam la wës. ci jàmm. sant yàlla. maa ngi ko sant xëy ba. suma ko taxaw ba xool. ay xoolal ci Soso la woote nag. waa bis ñëpp. dara ko. dara ko xaw. jugal taxaw. jugal taxaw. maa ngi nii. yaa njaab li. waa gis nga. xale ci Soso yi daa mel ni yow woote tey de lu mu doon doon. ki woote mooy borom wàcc fekk fa ay doomu ndeyam dañuy wàcc ba ci suuf lim ci def doyul waa caatal ma waa caatal ah caatal ma wàcc xale def koy sombaari mo ter tey lan ngeen vert noir lay def ba mu bëri doole yow est-ce que mën nga xale yi li ñuy def ni tëj sa mbaari mu naa loolu daa ni xale yee ko mën xale yee ko mën mara doo njaab ñu xool aywa bàyyi jaabal rek xale ma rek bàyyi ma non bàyyi rek ajal nañ bàyyi ma taw toogal rek. waaw ma toog. waa Géejawaay woote nga ñëw fekk si leen fii nga yëg. waaw bu ma naa rek mi yaa ma fi indi doomu ndeyu bébé faa ndax Géejawaay lañ dëkk te ragaluñu loolu. mare naar xale bu baax bu yaru bu wootee dañ kaa war a wis ndax amuñu lu dul Géejawaay. waaw looloo tax ma. daa mel ni fu mu nekk nii da ngaa tudd Sassar ba li ci sax dañ koo kase taalalal ma xool. waaw feere nga place am. gis nga ra. xam nga ne man kontaan naa. ah boo kontaanee rek kontaan naa. ñu jaar si maquillage bi. waaw sama doomu yëngu nag ñu xool. non bàyyi xale yi yëngu. yëf mag damay jëm mag sama yaram a neexul. merci beaucoup ok. ne na gis bëgg yàllaa koy def ci jaamam mu gis ma bëgg ma lool macha allah fa tubaarikàlla fonk ma respecté ma xam may kan fatti lan madame naar ma gisee naan ma sama ma woowee caara géwél xale yëpp bëgg ma man su yoboo ma ne xale yi wàkki naan xale yi bëgg kenn bañ ma doom ji boo tëggee bés tudde ko sama seex bi ku mbagg a jege yaayi Baye Sall àdduna xam ma moom fu mu jóg yóbbu ma lu mu am may ma ci lu mu xam wax ma seex saxaar fay boo dugg ma du ko

waaw moom ñaari ñoo xaral tey yaa ma gën a xam madame Naar bu xoolee ñëpp a ñëw yaa ma gën a xam waaw jigéen ju baax la ak Serigne Saliou Mbacké xale ndaw yi ñëpp la respecté asama ba xam ne doom ñëpp a ko bëgg yaa ngi dégg fii moom daan na wàcc moom ñu ci dara tamit waaw ban yëg-yëg nga am en tant que sa xarit woote ah ban yëg-yëg nga am en tant que sa xarit woote sama xarit la bu ñëwee gën a waay maa tax mu ñëw gën a waay ak Serigne Saliou Mbacké borom baax la naaj. waaw naaj te sa mbaari mu naan. waaw jubal ma xool. waaw loolu après ba léegi am nañu man am nañu. après la. da ngay sif ma dëkk ba léegi xale yi fan yëpp a ngi si. waaw loolu am na. Ah, ah, waaw si fa. non boobu xelal. waaw tout ce amul ragal de am na kon yéen a ngi am ay ragal ba léegi. am na mu ñu am ragal. seen ragal li nga bokk. non non non non non non. ma fi yaay de amul ragal. waaw si nga ko. Baba Karam. amul waay dina am rek. waaw merci beaucoup. ah. merci beaucoup. Ah, waaw naa amal jàmm rek yow. salaamaaleykum soxna si Marème Ndar nuyu naa la. xëy naa la. nga sañ sa ni xeeb. non non. ñem na koo décortiquer wax xam lan la. Ah, ni def sama zone. bu baax. zone terre xale bi nga xam ne mu daggul baaxul. man dalul ma xool. lan. mi. waaw damay foo pareegu ma ni lancement la film bi ñëwagul. daa xam deuxième sol. lan tey ngay tey la àdduna di yëngu. ñu ne mel ne Toko Sabane Sagne tey ngeen organiser sa yore ñëpp ñëw wuyu si leen ban yëg-yëg nga ci am. kontaan sama xol bi sedd xam ni baax rek am solo ak oyof. ma ne ko baax rek moo am solo ak oyof ñi dañ maa bëgg barke Seydina Muhammad Pikine laa juddoo Pikine laa bokk mu ñëw Géejawaay def sama programme mu mel ni yàlla rek barke Seydina Muhammad tey bu ñu ñëwee ñëpp xamee ñu xamee la ci li nga xamante ne moo du Touche Tasar Touche Tasar yi ñu nekk. Touche Tasar waaw ñu ngi gën a liggéey bala nga koo xam léegi léegi ma ñëw dëbb fii ba mu mokk rumba mais daa mel ni seen bës bi dafa xaw a wàññeeku nekkoon di liggéey dañ doon nelaw yeewu nañ dañoo yëngal réew ba mu waaw kon ñu bàyyi ba nga déllu déllu sol rek bul booy booy borom yoore yoore wax nga ko ñëpp ñu toog. nuyu naa la. ça va. maa ngi jàmm. maa ngi jàmm ba. am ngeen nuwaare nga place am. loo neex. loo saw loo cóor. lii madame Naar woote yéen ñëpp ngeen ñëw wuyu si la ban yëg-yëg la am ngay def. madame Naar sama seex la loo neex. borom baax la champion la bi laaxee. borom baax la. naas kay. fu mu jaar nag yoon la bi laaxee. ku la posal. ah. lii kan ko defal xafi. sama bu ne fii sama koñ. ba nga ne Sénégal ku muy defal dina la taamu. ba loolu. est-ce que mën nga siif. ah. ma lay fàq ba léegi ñu ngi siif est-ce que mën nga siif. wallaahi gis nga de. merci beaucoup. wallaahi maram na maa ngi sant yàlla baax a baax. yaa ngi ci jàmm. léegi nag réew mi yaa fi dàq a fecc. ah daa yaa léegi nag réew mi yaa fi dàq a fecc. daa yaa ko wax ne waxuñu. siifal ma xool. maa ngi ñëw léegi. siifal ma xool. maa ngi ñëw léegi. non siifal ma xool. sant yàlla ci jàmm alhamdulilah ngeen naar woo tey yéen ñëpp ngeen di wuyu si ko ba njëkk nga am waa gis nga ànd ak ma jaaga rek ak papa sama doom yaay ànd ma jaaga wéykat bi nga xam ne moo xew si jamono lu kan moo la solal. ah. kan moo la solal kan moo solal. waaw mais gis nga mooy ma jaaga rek am nañ mooy rek loolu boolewul boolewul ma dem naar ndax bu ñëpp doon baa ñëw loolu yaa am gën a xam. d'accord merci beaucoup. noonu la ñu. kii de xam naa ne maa ko bañ a mënul fecc yow mënoo. waaw waaw dégg naa ko mooy loolu damay jàng rek. yow mënoo. waaw damay jàng rek. waaw si foofu si si xale rek yow yaa ci. waaw loolu ma koy def loolu buddi la fara Mas mais ñoo far. yaa ko dàq fecc kii yaa ko dàq fecc. non moom mooy sam patron. sa patron. mooy sam patron. léegi nag mooy wala patron. non ba amee rek sa patron. sa patron. waaw d'accord tey tey ba dem naar woote yéen ñëpp ngeen ñëw yusi ko kon mais comme yëgee rek. waaw day suñu jigéen. day suñu jigéen bëgguñu suñu soirée bu ko tardé. chaque jour ñu bàyyi suñu. donc ki ñu xam doy ma jaar nga ñu xamee. mooy suñu maïs. kii la ñu am. am na mooy suñu Youssou Ndour mooy suñu waa Seck mooy suñu Pape mu am rek kii la ñu te kii la baax ñu ñëw ak suñu mélangeur Assane amul leneen waaye kontaanee naa leen. mais bi rek amul mu ngi tey wala mu ngi tey prix wala. Faye bi waaw ñu Faye bi ndax ñu àndal yónni nañu dëgg naa yow. dinaa ñëw ngeen jàngal ñu. am nañu toor ak yaa xaw a kii waaye dinaa xaw a kii daal tàmm nañu. yaa am na ok kontaan nañu jaay. Thank you. rek xam nga ne noir balaa moom ma nga place toog ne rek dañu fa jug. bañ a xeeb li ma sañ nga de. solo. Turquie Turquie Turquie. naa xale yi la a tendance jéem laa toppandoo nii bu subaa. ah dëgg eh, eh, eh, bi ngay bi ñëpp ñëw yaakaar naa réer nga Sadira. waaw lii la laa defaat boo tax ñu wuy si la yombul. yombul barke yàlla tey looy wax tey sa waa xol bi sedd. sedd rek barke yàlla. Amadou ñu ambiance mu neex. te kon ñaasal kon ñëwaat. waa waa waa waa waa waa mi yaa tu tas sa mbaari bu naa. te mbax kin jër moo def. tas sa mbaari mu naan tas tas. dëgg la. bilaay yow. Eh, yaa ci jàpp. amul science. amul science. oo xalaatee da ngay perte. dëgg la mi yaa la ñu wax. xool. dégg mbaa xam nga ne wàcc xale. wàcc xale wàcc xale lépp xale. barki Seydina lan ngeen yëg. kontaan instant yii mënu maa wax. barki Seydina sama doomu nday sama xale waaw sama lépp sama seex waaw. koo xam ne jamono jii foo ma gisee rek. boo gëstoo gis ko. Mhm. moo xewle barki Seydina Mohamed. na am jàmm rek yàlla ko yàlla jàppale yàlla ko fi mu bëgg yegg mu yegg fa. yàlla bàyyi ma ak moom ba si kanama kanama kanama kanama kanam. bilaay. lan ngeen di préparé yéen waa groupe Tous Tassane. waa ñooñu de. loo xalaat rek. bilaay. yéen ci lan. muy lépp. waaw. lan que doo si ñamal sénégalais. ah may leen ñu tuuti rek. waaw. tës sa mbaari bu naa. waaw waaw waaw waaw waaw ñëw suñu dugg rek rek ñëw suñu dugg rek rek maram naa rek waaw maram naa suñu rek la otom yaa miya moom bu ñu xewle dañu bàyyi lépp ñëw ndax loolu moo ñu war yes Samba bu fekkee bu à part bi ah, nga xamante mooy li ñu wax lan la Samba Dia di waajal fan si. waaw bëri na bëri na bëri na. xam naa nag loolu. incha allah léegi rek di leen gis lépp. ah ndax dëgg neexul waaw. d'accord baax suuf. lu neex rek lu neex lu neex rek. maa ñëw rek ambiance ambiance rek. waaw man fi mu ne mën nañu laa xaar grand grand. maa la wax loolu léegi mën nañu laa xaar grand. waaw.